الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy limaza alsalaatu xayru min annawmi léeg-léeg nu tëdd ba guddi fajar jot diggante 4 heures ba 4 heures et demi ba 5 ba 5 demi nu dégg ab noddukat walla ay noddukat ci jàkka yi bu nu noddee ba ñuy wax ne julli fajar jot na ci biir nodd gi ñu daal di ciy dégg assalaatu xayrun min annawm mooy julli moo gën nelaw mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ñun jamono boobu nga tëddee ci sa kawlal ba nga dégg noddukat bi woote yàlla bi ne assalaatu xayru minan nawm boobu yaa ngi ci kawlal bi di wëlbateeku lan nga yëg bi nga déggee baat boobu lan nga yëg lan nga sentir yan xalaat moola dugg lan nga xalaat wa anta tasma fi kulli layl zaaka nida jamono jooju ngay dégg wax jooju baat boobu wote boobu ñu lay wax asalaatu xayru minan nawm mbokk yi jamono boobu loo dégg loo yëg lan nga xalaat ndax yëg nga maanaa bi ndax xam nga baat boobu lu muy tekki ndax xalaat nga ci kam wa kam min alxalq yasmauna tilka alkalima walakin ayuha alahbab qalilun man tafakkara fi maanaha aka bari ci ay jaam aka bari ci mbindeefi yàlla yi aka bari ci jullit yi ñoo xam ne dañuy dégg baat boobu waaye ak a néew ñu ci xalaat ñëpp ci ñun wala ñu ne ñun ñëpp danañ dégg baat boobu fajar muy asalaatu xayru min an nawm waaye ñu néew ci ñun ñoo ci xalaat kam wa kam ulaika allazina yasmaunaha walakin ayuha al ahbab qalilun man yu yab man yulabbi mustajiban linnidaiha ñu ëpp ci ñun danañ dégg baat boobu lu baree bari ci ñun waaye mbokk yi buñ ko déggee ñu néew ci ñun ñooy wuyu ji baat boobu ñu néew ci ñun ñooy dégg baat boobu dem wuy ji xaqan asalaatu xayru min an nawm wallahi dëgg la dëgg la bu leer nañ loolu bilaal bi di wax loolu bilaal yi di wax loolu ñuy woote fajar naan asalaatu xayru min an nawmi wallahi dëgg la ndax julli moo gën nelaw naam asalaatu xayru min an nawm limaza li anna nawm istijaba li nidaai nafs julli moo gën nelaw lu tax ndax waxtu woowu nelaw pour bakkan la waaye julli gi pour yàlla la ñaar yooyu rek ñoo fi nekk ki dégg baat bi assalaatu xayru min an nawm mu wuy ji yàlla wala ki dégg asalaatu xayru min an nawmi mu wuy ji bakkanam ñaar ñooñu rek ñoo fi nekk hiya xayru min an nawm assalaa julli googu mbokk yi moo gën nelaw limaza li anna nawm mawt wassalaa xayaa xayaat julli moo gën nelaw ci waxtu yooyu lu tax ndax nelaw ci waxtu yooyu dee la te julli dund la kon du benn kon ki yeewu dégg baat yooyu daa di faxasu ci kaw lalam woo wuy ji boroomam ko ku dund la kuy dunda ngoog waaye ki nga xam ne dégg na baat bi ñu naan ko assalaatu xayru minan nawm xanaa yëgoo ne julle gën nelaw tontuwul ci làmmiñam waa ma ngay tontu ca xolam ma ngay tontu ca xelam ma ngay tontu ca lisaanul xaal naan la a nawmu xayru min assala kooku mayit ki nga xam ne dafa dégg baat boobu tëdd ci kaw lal bi di bërëngu ndeyjoor ak càmmoñ de gauche à troit ñu naan ko yow lañuy ñuy xaar ñëwal julli mu naan déedéet waxu ko ci làmmiñam de waaye xol ba ma nga naan déedéet waxtu wii an naw mu min as-salaa kooku julli di kooku mbokk julli di bu ñuy xool kan la dana nu fekk ku faatu la ku dee la kooku jëmmam mooy dund waaye ruuxam digganteem ak yàlla dafa dagg ixwat al iman li anna al mumin wal kafir yastarikaani fi nawm ñaar bu yeboo mu leer ci ñun ñoo ko bokk jullit ak yéeféer ci waxtu woowu ñoo bokk nelaw yi wala ki gëm yàlla ak ki ko weddi ki ko déggal ak ki lànk jullit ak yéeféer ci waxtu waawu ñoo bokk nelaw yi ni nelaw yi neexee ci yéeféer bi noonu la neexee ci jullit bi ni jullit bi di nelawee kontaan noonu la yéeféer bi nelaw kontaan waaye lan moo leen tàqale li leen tàqale mooy jullit bi dégg na woote yàlla mu yeew wuy ji yàlla waaye ki tëdd lànk kooku moom bu yeboo mu xam ne moog yéeféer yee yem wasalaatu laa yusalliha illa mumin ci waxtu woowu ci lëndëm googu ci nelaw yu neex yooyu ci ndox mu sedd moomu waaye ci lëndëm googu kenn du fa yeewu genn këram topp lëndëm gi wuy ji lu dul ko jullit lu dul ko gëm yàlla illa mumin li ajli zalika kull naadaaka almunaadi assalaatu xayrum min an nawm loola tax wootekat bi woola yow jullit bi ci baat yii ne la yëgal ne kat julli moo gën nelaw ayuhal ahbab ayuhal muslim fa ayna anta waqtaha indama tatajawab almaazin zaaka nida yow sama mbokkum jullit ci waxtu woowu nga xam ne dëkk baa ngi riir jaww jaa ngi yëngu manaa bir yi min bar yëpp yuuxoonoo nañ kàddu googu naan assalaatu xayru min annawm ay naan ta yow jamono boobu foo nekk jamono boobu foo nekk ku nekk ci ñun na tontu jamono bi nga tëddee fajar ba nga dégg noddukat bi ba nga dégg noddukat yi jawwu jëpp di riir naan assalaatu xayru min an nawmi jamono jooju yow sama mbokkum julit maag yow fan la ñu nekk ixwatal iman hal anta min al musaariin nahwa baytillah mujiban li nidaa'i rabbik est ce que jamono yooyu yow dégg nga baat boobu yeewu nga ba songu mbooloo yi ak barab yi nga xam ne ña nga fay julli fajar est ce que bi nga déggee baat bi lan la jur ci yow bi nga koy dégg foo nekkoon bi nga ko déggee lan la jur ci yow ndax jaral na la nga yeewu ndax jaral na la nga jàppi ndax jaral na la nga dem ci mbooloo moo xam ne dañuy julli fajar nga julli fa dangaa dégg baat bi wuy ji wala dangaa dégg baat bi lànk bay wuy ji am anta waxtaha fi aalami algaafilin alladina gariqu fi subati nawm ndax jamono yooyu mbaa yàlla nattuwu la nga bokk ci kuréel yi nga xam ne dañoo lànk ba a wuy ji nga bokk ci doomu aadama yooyu nga xam ne dañoo saggan danañu wuy ji ku ne bam des woote yàlla tabaraka wa taala ixwatal iman salaatul fajr wa tariqul janna julli fajar ak yoon ngi muy jaaral doomu aadama boo yóbbu ko aljanna haadihi bisaara assaadiqu alamin sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla albardayni daxala aljanna muttafaqun alayhi bokk julit yi lii mbégte lii bégelaate la sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bégal jaamu yàlla yi di leen wax ne bég leen ñi nga xam ne dangeen di julli ñaari waxtu yi yonent bi nee na ñaari waxtu yi ku ko julli rek dugg aljanna ñu ne ko ñaari waxtu yooyu yàlla mu ne ñaari yu sedd yi man salla albardayni ñaari waxtu yu sedd nekkul ci tàngaay ci sedd la nekk mu ne ku ko julli rek daxalal janna wal bardayni ñaari yu sedd yooyu mu ne salaatu subhi wal asri julli suba ak julli tàkkusaan yonent bi nee na ku koy julli di nga dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yaliju nnaar man sallaa qabla tulu'i shams wa qabla gurubiha rawahu muslim sunu yonentu muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na waa ji du dugg safara mukk ñu ne ko kokkan la mu ne kuy julli balaa jant bi fenk ak julli balaa jant bi soo balaa jant bi fenk ban julli la julli suba balaa jant bi so ban julli la julli tàkkusaan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa yaliju naar du dugg safara mukk man salla qabla tulu'i shams képp koy julli tàkkusaan wa qabla ghurubiha suba képp koy julli suba wa képp koo xam ne dangay ngay julli tàkkusaan hadis boobu imam muslim moo ko solo mbokk jullit yi nanu mooy tandiku wa iyaak an takuna min almuridin fi an hada alxayri kulli nanu mooy ta ndiku balaa ñuy bokk ci ñooñu nga xam ne dañoo dummóoyu dégg seytaane woote nga wuyu dégg ku nekk caaxaankat woote nga wuyu su stade yi wootee nga wuyu su làmb ji woo nga wuyu su la woowee ci soirée yi nga wuyu su la yàlla woowee pour nga ñëw sàppe ci kanamam nga lànk doomu aadama na moytu loolu nanu moytandiku di wuy ji ku nekk ba mu des yàlla tabaraka wa taala gis ngeen tey ci sunu jamono bi nu toll li ma doon wax démb mooy Sénégal farata reyu fi jullit farata def fi farata dee amul li ngeen gis nit ñi di dee yëpp ay shirk la ak ay bidaa lépp lu ngeen gis Sénégal catastrophe am fi nit ñi dee accident nangam nangam nangam nangam nit ñi fu ñu jomoon du farata du sunna waaye farata ak sunna mosoo gis ku ci dee Sénégal dañ doon julli ji jumaa ñoom ñëpp dee nañ ana mu fan la dañ doon xiyaamul layli dee nañ ana fan la dañ doon woor ñoom ñëpp dee nañ fan la dañ doon dem ci ay sirk ak bidaa dee nañ ñoom ñëpp loolu rek ngay dégg yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla ni yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان وبشرى أخرى للمصارعين إلى إجابة النداء الصلاة خير من النوم beneen bëggalee ngi nii bu sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di bëggal gaa yooyu nga xam ne ñoo dégg assalaatu xayru minan naw ñu wàcc seeni lal wuy ji yàlla tabaraka wa taala wa hiya an takuna min al munaimin yawma alqiyama bi ru'yati llahi taala ñooñu nga xam ne ñooy wàcc seeni lal ci waxtu yooyu di wuy ji yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñooñu yàlla boole na leen ci ñi nga xam ne ëllëg danañ jàkkaarloog yàlla yowmal qiyaamati loolu rek ndeke doon na doy ab jullit di wàcc lalam ab jullit soobu ci ndox mu sedd ab jullit di jaar ci mbedd yu lëndëm yi ji yàlla tabaraka wa taala jëlee nañ ci jaabir ibnu abdullah radiyallahu anhu qaal كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال جابر بن عبد الله نينا بس dañoo toogoon nag yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi la woon mu jekki-jekki daal di xool kaw asamaan mu daal di jàkkaarloog weer wi mi ngi ba toll ne badr foofu dafa am fukki fan ak ñett wala fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom weer wi day mat sëkk kaamil ci waxtu woowu la woon jaabir ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañu amma innakum yéen ñii sa tarawna rabbakum kama tarawna hada alqamar yéen a ngi ni toog di ngeen jàkkaarloog seen boroom comme nu ngeen jàkkaarloog weer wi lan moo leen koy may nag lan moo leen koy may mbokk yi lan moo ñuy may ëllëg ak sibbir ñu jàkkaarloog sunu boroom di ko xool jàkkaarloog moom comme ni ñuy gisee weer wi bu amee fukki fan ak juróom mu ne te gis gi ngeen koy gis du leen indil benn mettitu bët du leen indil benn jàngoroy bët waaw lu ñu koy may mu ne su ngeen mënee julli balaa fajar jot balaa jant bi fenk su ngeen mënee di julli balaa jant bi sow mooy julli fajar ak julli san ñaari julli yooyu ku ci sax yonent bi neena na sallallahu alayhi wa sallam di nga jàkkaarloog borom bi ëllëg yowmal qiyaamati allahu akbar xoolal tey ñiy sonn ci bidaa yi di sonn ci sirki yi di daw lu nekk ñu koy def jaamu yàlla gaa ngi nii farataa ngi nii sunnaa ngi nii farataak sunna ku ci sonn rek dugg aljanna kenn du sonn ci jaamu yàlla topp yonent daa di perte lan la yonent bi wax kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba xeet bi yëpp danañ dugg aljanna ba des ku bañ xeet bi yëpp la yonent bi wax waxul waa Màkk waxul waa Médine waxul waa waxul waa dane xeet wi yëpp danañ dugg àjjana ba mu des ku bañ wa qaalu man yaba ya rasulallah yow yonent naka la nit di bañee dugg aljanna mu ne man ata ani daxal aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp rek di nga dugg waaye ku lànk bañ maa topp doo dugg waaye xoolal tey xoolal tey ci sunu dëkk bi bul wax sax addina bi ñëwal fii rek nga jommi lu nekk woote gu nekk di nga gis nit wuy ji ko ba woote yàlla ak yonent yaani mu ne ñaari julli yooyu mu doon wax balaa jant bi fenk ak balaa jant bi saw mu ne yaani alfajr wal asr summa qaraa ba mu waxee loolu ba pare dafa jàngal dafa jàng dalil buy wane ñaa hadis boobu aaya bi moo koy moo koy tekki mu ne wa sabbih bi hamdi rabbik qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha suratu taha aya 120 wa sabbih del sabbal yàlla wa sabbih del wax subhanallah bi hamdi rabbika di sant sa boroom na nga julli kañ qabla tulu'i shams balaa jant bi jóg wa qabla ghurubiha ak balaa muy sow mu ne mooy takkusaan ak fajar mu ne qaala alxataabi boroom xam-xam bu màgg boobu di firikatu alquran nee na haza yadullu ala anna ruya qad yurja nayluha bi muhafazati ala hatayni salatayni mu ne gis yàlla googu ñuy wax léegi-léegi ñoo ngi yaakaar ne li koy maye ñu ngi koy ame ci wattu ci respecté ci sàmm julli ñaari julli yi mooy ban julli suba ak julli tàkkusaan ci ñaar yi ndeke ëllëg lañuy ñuy amee gis yàlla tabaraka wa taala wa busra uxra li rijali lfajri wa hiya duxulu fi himal maliki subhanahu wa taala beneen beneen bégalee bu yenente di bégal gaa yooyu ñuy woowee rijalul fajri rijaalul fajri mooy ñi yeewu fajar ah, dafa am rijaalul fajr am rijaalul nawmi ñii ñooy gaa yi nga xam ne dañuy yeewu fajar ñii ñooy gaa yi nga xam ne ndeysaan zaaka rajulu baala shaytaanu fi uznayhi dañu ne yenentu benn waay ngi ni du yeewu fajar mukk jamais mu yeewu fajar soo yoroon ay tabala wala nga yor ay ndënd ci nopp yi du yeewu mu ne kooku day mooy waa ji nga xam ne seytaane moo saw ci nopp yi ndek am na ci mbokk yi ñoo xam ne am na ci jullit yi ñoo xam ne bu fajar jotee seytaane mooy génn ñëw ba ci seeni nopp génnewaay yàlla yàllaam saw ci nopp yi ba mu fees moo tax du ñu mën a yeewu fajar beneen riwaaya bi mu ne benn waay boo xam ne mu ne bu nit ki di tëdd moo tax ñu ne booy tëdd defal say azkar balaa ngay tëdd tàllalal sa ñaari loxo yi nga jàng qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu naas jàng ixlaas def say azkar daal di koy tëfli ci loxo yi diw ci yaram bi yëpp tàmbalee ci bopp bi ba ci suuf fépp foo xam ne sa loxo bi mun na fa laal na fa dugg sooy tëdd nga wax bismika allahumma amuutu wa ahya nga daal di sa loxo ndey joor bismika rabbi wadatu jambi allahumma aslamtu nafsi ilayk yàlla maa ngi lay jox sama bopp maa ngi lay dénk sama bopp yàlla maa ngi teg sama wet yii ci sa wet yow yàlla boo ma naree dekkil nang ma sàmmal sama ruugi soo ma ree dekkil nga dekkil ma ci gaayu baax yi soo ma ree rey yàlla nag ma yërëm dugal ma aljanna nga daal di tëdd sa loxo ndeyjoor nga tëdd wetu ndeyjoor soo deful lool booy tëdd seytaane day ñëw yeew sa tànk yi yeew ñetti yeew la la yeew ñetti yeew la yeew ba nga ne koj xam nga lu muy wax mu ne gudd gu yàgg xaran yu diis guddi gu yàgg na tëdd ba huit ci suba allahu akbar nga yow fekk ñépp julli nañ waaw bi la seytaane yeewee cinq jot nga dégg ñu nodd nga jot ne bërët daan ne alhamdulillahi allazi baadama amatana wa ilayhi nusuur benn takk takk bi ne tëf daal dagg nga jël satala bi dugg ci toilette bi jàpp génn beneen bi ne tëf daal dagg nga dem julli ji fajar beneen bi ne tëf daal dagg ñetti yëpp dagg nga yeewu nekk ku sawar ku mën a jaamu yàlla waaye bu fekkente ne defoo loolu ba da chaque jour nga dajee gaay eh, sama yaram bi dafa fasu du feccatiku parce que seytaane moo la yeewu du mus feccatiku mu ne busra li rijaalil fajri mbégtee ngi nii boo xam ne ñan ñoo ko moom mooy góor ñooñu di yeewu fajar yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na man salla subha fa huwa fi zimmatillah képp ku julli fajar yaa ngi ci sécurité yàlla yaa ngi ci sécurité yàlla yàlla moo la defal sécurité kon looy doyee gàllaaj looy doyee ay xarfa fuufa looy doy ay garde looy doyee dara ku yàlla aar ku yàlla gaar man sallal fajra fa huwa fi zimmatillah képp ku julli fajar yonent bi nee na yaa ngi ci kiiraange yàlla yàlla moo lay aar fanzur yabnu aadam xoolal ku nekk doomu aadama yow mbokkum jullit xoolal ku nekk ci kiiraange yàlla tabaraka wa taala mu daal di waxaat moom yonent bi mu ne man sallal isha jamaa kaana ka qiyaami nisfi llayl wa man sallal fajara fi fajri fi jamaa ka annama sallal kullu ñaara ngi nii képp koo xam ne yaa ngi julli géeye ci mbooloo yaa ngi julli fajar ci mbooloo kii julli gée ci mbooloo mu ngi mel ne ku def qiyaamul layli am na tiyaabay ku fanaanee julli ba guddi gi jeex ñu ne yonent kii julli fajar nag ah mu ne kooku fa ka annama salla layl kullu mu ngi mel ne ku julli guddi gi yépp ba mu jeex takk kon mbokki julli di wa ilayka wasiya ayuhal muslim wasiya aalim rabbaani abi darda radiyallahu anhu wa arda yuxbiruka bi sharafi haadihi salaa mu ne jëlal yow sama mbokkum jullit jëlal ndénkaane sahaaba bu màgg bi borom xam-xam bi di abi darda radiyallahu anhu wa arda abu darda mu ne samituhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul maa dégg yonent bi di wax ne ibud rabbak ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak jaamul yàlla ba mel ne yaa ngi gis yàlla ndax boo gisul yàlla yàllaa ngi lay gis loolu mooy iman mooy bi ngay jaamu yàlla yaa ngi mel ne ku taxaw ci kanamu yàlla mi ngi mel ne yàlla mu ngi lay gis nga am pas-pas ne yow boo gisul yàlla yàlla moom am na capacité doole gis la yow waaye gisuma kenn kenn gisuma yàllaa ngi lay gis mu ne ñaareel mu ne wa ud nafsaka fil mawta saa yoo xëyee suba ba ngoon boo yeewoo jàppal ne doo yendu soo yendoo jàppal ne doo fanaan konteel sa bopp ci way faatu yi bu fekkoon ne kenn ku nekk ci ñun soo xëyee jàpp ne midi du la fekk kon doo dugg ci ay musiba doo dugg ci ay giraawaali doo dugg ci ay mbir yoo xam ne dafa yàq sa diine day yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira mbokki jullit yi bi ma xëyee tey ci 9h ba 11h dama ko wuy téléphone moo tax maa ngi dénk sama bopp di leen dénk groupe whatsapp yi nangeen ko moytandiku benn jigéen buy sëy nga xam ne sëy na lu tollook nangam kenn xamul ñaata at dugg ci groupe whatsapp ñu détourné ko ci ba mu nobanta fa keneen te mu ngeeg borom këram ba pare di woote naka laay def ba génn ci lii ah di envoyante ak waa jooju ay photo di wax wax yu bon yoo xam ne dara des leen rek loolu ñu daje daal di mooy yàlla eggali ko naka la ay góor ak jigéen di bokkee groupe whatsapp ku nekk nga ciy wax wax yu bon naka te tey loolu moo lëmba dëkk bi imo yi ah lu nekk nañu sàmm suñu bopp nañu sàmm suñu diine nañu sàmm suñuy soxna nañuy sàmm suñuy doom nañu mooy tandiku bu baax mboolem dëkk bi dangay gis ku jóg rek daal di créer benn groupe ku jóg rek créer benn groupe boo amee ngëm yàlla nga dugg fa soo dëgërul lool yenn saa yi ñu rësal la dugal la ci giraawaale yoo xam ne ëllëg day yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira nañu mooy tandiku loolu bu baax a baax a baax abu darda nee na jaamul yàlla nga lim sa bopp ci way bàmmeel yi konteel sa bopp ci bàmmeel yi wa iyaaka wa daawatil mazlum mu ne mooy tandiku leen ñaanu ku ñu tooñ mooy tandiku leen ñaanu ku ñu tooñ ñaanu ku ñu tooñ amul frontière ñaanu ku ñu tooñ mbokk yi suñu jumaa ji ñépp a ko war a ñaanal ndax jumaa ji ñu mu sene ndax jumaa ji day dundal alquran ak sunna moo tax ñu bugg ko xatal ndeyjoor ak càmmoñ penkook sow jumaa ji képp kuy sujjóot dañ ko war a ñaanal yàlla yàlla sàmm ko konteel sa bopp ci way bàmmeel yi mooy tandikul ñaanu ku ñu tooñ fa innaha tustajaab wallahi ñaanu ku tooñ yàlla def koy nangu ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين الإساء والفجر ولو بحبوة فليفعل képp ku mën ci di teewe ji julli fajar ci mbooloo julli gee ci mbooloo booy raam sax yonent bi nee na nga raam fekk ji ko booy raam mbokk yi kenn ku nekk ci ñun bula la pàkk bee barab bee boo fa jullee fajar dix mille francs boo fa jullee gee dix mille francs boo doon raam sax boo feebaree sax di nga ne jóg jàppoo leen ma ma dem kenn ku nekk si ñun fi toog julli si laa wax bu la wóoroon ne place sangam bee bu ma fa jullee fajar cinquante mille bu ma jullee gee cinquante mille foofu boo fa yéexee dem ndax di nga am place pourtant li ñuy am ci fajar moom moo ëpp cinquante mille yonent bi nee na waxuma julli fajar de julli fajar mooy bu ñu ba pare imaam bi ñu liqaam imaam bi taxaw jiita jullit ñi yonent bi nee na ñaari rakka avant fajar gi xayrun min ad-dunya wa ma fiha wala loolu yonent wax ko rakka atay fajar xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakk yooyu ngay def di jàng fatiha bu la neexee wala nga jàng fatiha qul al-kafirun wala nga jàng fatiha ak lixlaas yeneen te fajar gi ñëwagul jullee koo farata bi yeneen bi nee na ñaari rakk yooyu xayrun min ad-dunya wa ma fiha musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa sallam khutba men hannde wonno assalatu khayrum min annawmi o fajiri fof sen lelima ha allah hokki en fajiri o ina feera ma nan e jumaji walla jamaji noddinoɓe ɓe ina nodda julɓe ɓe so noddini ha noddinagu ngo ina yana ɓe wiya assalatu hayru min annawm juulde ɓuri ɗoɗɗa ɗoyɗi ɓuri ɗoygol juulde assalatu juulde hayrum minan nawmi ɓuri lalade leeso ina ɗano o wi waktu oɗon nanɗa dande ndeɗon naati e nofru ma ɓenni naate nder hoore ma ɓenni ari e ɓernde ma nde nenɗa ndeɗon daande noddinowo o ina noddina ina wiya assalatu hayru minan nawmi holko tinɗa beele wonko tinɗa nde tinɗa ndeɗon daande naate e ɓernde ma holko miijiɗa holko miijiɗa ndeɗo dande kala nanɗo ɗum leltade waɗɗaki mum beele a andi ndeɗo dande nde nanda ɗum nde ko allahu nodduma subhanahu wa taala tagɗomo o ko on nodduma ya ar goppa ɗoyli ɗi ngara e oɗon saaha nde ɗanotoɗa nde waktu oɗon yoni nanda assalatu hayrum minan nawmi wasɗa ummade téléphone ma o soni ƴeewɗa yiya ko suka debbo mo laɓat mo laɓiɗa ko kanko noddanma a notima walla a notaki on de a wiyanimo a wiyani non woppuɗo ha ɓooya hami finoya ala a umma ton doga ƴetta portable o jaboɗamo e no jaboriɗa oɗo ni maccuɗo ko hanma no woppude oɗo maccuɗo jaaboɗa allahu subhanahu wa taala on onon ɗiɗo ɓe hewɓe e yimɓe ɓe min e mon fof hewɓe men eɗen lelo fajiri nanen assalatu hayru minan nawmi o wi nden nanɗen ɗum nde beele en goppi ɗoyli men ɗe jaaɗen ngoɗo noddinago beele en mbaɗi Mm, walla enen ken jeyaɓe ɓe annduɗa ko allah subhanahu wa jarribiɓe ha ɓe ɗaniɓe notoyaki allah allahu akbar ihwatal iman o wi heewi e yimɓe ɓe nanoɓe ɗiɗo konnguɗi kono ala ko konnguɗi ɗi waɗata e maɓɓe heewi e meɗen nanoɓe ɗiɗo noddinali ɗiɗo konngudi woni assalatu hayru minan nawmi kono ɓe miijota hen haydara konngudi ɗi ala ko wappata e maɓɓe kam wa kam ulaika allazina yasmaunaha walakin qalilun man yulabbi mustajiban linidaiha heewi heewi e men heewi gasata nanoɓe ɗiɗo noddilaaɗi kono heewi famɗi famɗi ko jaboto son ƴeewi wuro ngo no heewi julɓe a hoɗay e wuro keefeero hoɗaani toon a hoɗat e wuro keefeero hoɗaani e wuro ngo juulde yona njahon jama a tawata toon yimɓe sappo hoto julɓe ɓe woni te hannde so ɓe wiyanoma iye mbaɗɗi tewnan toon palatuji moƴƴi walla wiyaɓe kalis nan toon walla wiyama naggam yimɓe foof doga jaaha allahu akbar ihwatal iman musidɓe julɓe assalatu hayru min annawmi haqqan wallahi ko goonga juulde ɓuri ɗoyli nam holko ɗoygol ko jaabowol fittandu juulde ko jaabowol allah ɗoygol ko maayde juulde ko nguurdam ɗoygol ko seyɗan juulde ko allah juulde ko allah jeeyi sa juuli ko allah juulanɗa sa lelima ko cheyɗane ɗananɗa ɓeeɗo ɗiɗo holmo jiɗɗa welto allah walla cheyɗan nelaɗo sallllahu alayhi wa wi juulɗo o somo lelo seyɗane haɓɓanmo kaɓɓi tati so fini o inni allah goto taƴa o inna allah kadi goɗɗo taƴa o inna allah so fini o wi alhamdulillahi leydi ahyana goto iwa so salligima goto iwa so juuli o fina o wona coftuɗo dewowo allah innowo allah juurowo kono so tawi o fini o innani allah walla nde o nde o waɗani askar makko seyɗane wiya ɗoygol juutgol ɗoygol ɓooygol yo allah hokku en nande goonga e rewde ɗum allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaaba du ñu tëj xutba bi lu dul danañu leeral am na këyit yi ñuy joxe pour ñu def ko pétition ndax dafa am kilifa guñ ko laaj pour bëgguñu histoire bëgguñu xeex ñu xuloo jàkka ji lañ bëgg mu des fi place bi des fi nit ñi mën fee xej mën a jaamu yàlla tabaraka wa taala loolu la ñu bëgg jàmm dong lañu bëgg moo tax ñu daal di leen ne kayit yi incha allah ku ci jot nga def ci sa tur sa numéro téléphone ak sa adresse bi iznillahi tabaraka wa taala semaine bi yëpp du ñu toog danañ seeti kilifa yi bu ñu demee ba jeex nag xam ne mënul après ñu ma seet yeneen solution yàlla na yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla na yàlla mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaaba allahumma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahumma fa nasaluk an tarudduna ila diinik maradan jamila allahumma ahsin aqibatana في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بمنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukum allah